Bienvenue sur Salam Vision. mbokk yi ñu ngi di gërëm leen sant ànd ak les programmes de Salam Vision Salam Vision euh, nekk une télévision au cœur développement et des êtres humains di gërëm képp koo xam yaa ñuy suivre sur le plan national international nekk télévision boo xam ni askan bi lañ fi nekkal guddi ak bëccëg tey nag ñu ngi jëm si noonu la rétrospective des faits saillants de l' actualité nationale mooy li am semaine bi ñu génn diggante altine ba ci àjjuma yi nga xam nag euh, yàlla may nañ ñu teewe ko si kàttanam ak yërmande dañuy commencé nag si mbirum euh, li ñu naan les vaccins mooy li ñu naan les vaccins dose ex na Ndakaaru barki dem njiitu réew mi le président ki Sall demoon na fële ci aéroport Blaise Diagne réceptionné fa deux mille deux cent mille dose de vaccin loolu daf nañ koy jëmale si askan bi euh, président Sall nee na forcé wuñu kenn ku bëgg nga ñaxtu ku bëggul yaa xam ñun dañuy fàttaliku il y a plus de trente ans quarante ans jamono yi Sénégal dañoo ñaxtu jamono yi amoon la fièvre jaune amoon la euh, peste jamono yooyu nit ñi daan ñaxtu mais man sax jamono yi sax mun naa wax la fekke woon naa ko. mais li ñuy woo Sénégal yi ñu ànd ak dal ànd ak yar ak euh, OMS organisation mondiale la santé ñoom saytu nañu vaccin amul benn jiixi jaaxa amul dara ñu si lam-laame lépp loo xam ni ñaaw na jëmale ko si askan bi plus de deux cent millions d'êtres humains ñoom euh, lañu fas ñax si àdduna bi boo xoolee réew tugal yi les grandes puissances ñépp a ngi pare pour ñaxtu ma ne bu ñu nax suñu bopp lii njëriñu askan bi rek la amul benn jiixi jaaxa borom xam-xam yi les spécialistes en médecine seet nañ ko ba si OMS ba nga xam moom bi ëmb euh, lépp loo xam ne si mbirum wér-gu-yaram ñu ne ñoom ànd nañ si pour mën a ñàkk doomu aadama yi euh, ñu ngi koy nag Sénégal talaata incha allah sur l' ensemble du territoire national le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr jox nañu ko ay ndigal avec les médecins ñu jël seen ñu mën ko wasaay partout dans les régions du Sénégal ñu ngi koy tàmbalee rek euh, ñax yi si mag ñi. juróomi euh, juróom fukki at euh, koy tàmbale si ñooñu ñu ñu leen di woo. mag ñooñu ak jigéen ñi suñu yaay yi suñu bàjjen yi ñu commencé à partir de talaata dem ñu ñaxtu ji loolu pour seen njëriñ la ak pour seen santé la loolu mooy problème mu vaccin yi xam ni Sénégal. jot na ko euh, Sénégal nag dëkku royukaay la boo xoolee yenn pays africain yi jotaguñu seen dose de vaccin mais ñun war nañu ne alhamdulilah rabil alamin loolu suñu mbégte la ak njëriñu Sénégal la ci mën a xeex Covid bi ñaan yàlla yal na ko fi yàlla jëlee ah boo xoolee ah, atum 2020 métti woon na ba 2021 bi ñu tàmbalee ñaan yàlla feebar bi yàlla na fi jóge si kattanu borom yàlla mën na ko am na ko bu jóge si Covid bi. nañu dem si prolongement du couvre-feu mooy l'actualité de la semaine xam ngeen ni couvre-feu bi jeex na euh, tey tey le 20 euh, jeex na démb le 20 euh, février ki nga xam nag mooy nguur yi daf ko prolongé ba fan. ba fan si mois de mars le 30 mars lay jeexaat yokkaat nañ ko un mois ma ne jàngat boobu fa la ñuy taxaw tuuti est-ce que couvre-feu bi jar nañu prolongé ko jar nañu yokkaat ko ndax jarul yokk jarul yokkaat ko. am na Sénégal yoo xam ni ànduñu si am ñoo xam nag ànd nañ si li jëmale si mbirum euh, prolongement boobu indiwaat indi na ay gàllankoor si mbirum koom-koom mbirum santé mbirum éducation ma euh, bu fekkee ni nguur gi ñoom dañu fas yéene yokk euh, prolongé couvre-feu boobu nañ ko def si ay beaucoup de dignité ak de responsabilité askanu suñu gaal sonn nañu si couvre-feu bi Euh, suñu yaay di jaay restaurant yi ba fenn si artistes yi partout ni ñaa ngi koy euh, yëg euh, indi lay gàllankoor si liggéey lañu muñ le 30 mars bii di ñëw si lañ mooy dinañ yokkaat couvre-feu bi ma ne askanu suñu gaal nañu ànd ak dal rek que fii ak le mars ba le 30 mars bu ñu yàlla génnee si couvre-feu bi ñuy gouvernement yi war na xool beneen beneen jéego ak yeneen motuwaay yi mën a jël génn Sénégalais yi si ay jeexi jaaxa l'actualité de la semaine tamit dañ koy jëmale si mbirum euh, usman Sonko nga xam mooy leader du PASTEF arrestation yaa ñuy wéy si dëkk bi tëj nañu loxo l'administrateur du PASTEF ak benn ndaw soo xam ni ñëwu si FRAPP la France dégage euh, ñoom ñëpp dañ leen teg loxo jëmale ko sur l'affaire Ousmane Sonko ba leen fële ci Bignona y a eu des jeunes qui ont à Dakar euh, ñu ngi leen euh, fas yéene àtte le procureur de la république ñu jot nañ leen déglu boo xoolee ñu bare jot nañ yàq ay ay alalu jàmbur toj ay oto jàmbur yàq ce qu'on appelle les édifices de l'État quelques institutions loolu ñëpp ñëpp a koy ñawul loolu nekk na mbir mu jéggi dayoo fii ci réew mi l'actualité de la semaine nag boo leen xoolee dañuy beneen mbir boo xam ni euh, dafa metti te Sénégal yi ñu koy ñaw mooy lan mooy assemblée nationale mooy pencum ndawum réew mi lan mooy assemblée nationale keroog junj naa ko ci benn benn jàngat benn jàngat assemblée du tàccu rek assemblée du saagante du xuloo du xiroo du ŋaayoo ma ni Sénégal nañu euh, réfléchir nañu gën di gëstu di gën di xoolaat suñu bopp ñan lay waxal mooy suñu mbokku les parlementaires de l'hémicycle de l'Assemblée nationale assemblée nan la yéen da fa tawal askan bi askan bi ñoo leen fal ñu mën a xam seen mbébét mën a xam seen i jafe-jafe mais du assemblée boo xam ni li ñu gis keroog dafa ñaaw sur la démocratie dafa ñaw pour ce qu'on appelle une bonne gouvernance loolu teguñu ko fenn taxaw fi di saagante tabante ay dëmm loolu du dëgg du yoon loolu du assemblée loolu di image bu rafet sur le Sénégal man nañ ko xoolaat bu baax di woo le président de l'Assemblée monsieur Moustapha Niasse qui a une expérience politique pendant plus de 50 ans, quelqu'un qui, a, euh, qui a connu le pouvoir, quelqu'un qui connu un gouvernement, di woo le président Niass mu jël ay responsabilités am ndam Niass am na expérience mais war na wax ak quelques ses parlementaires ñu ànd ak yar tegin respecté Sénégalais yi te def teguñu ko fenn du dëgg du yoon di la fay de di fay million di di ca manqué woo dara ah lan ngay wax di tey nekk à l'Assemblée n'est comme marsiculaire, nekk comme euh, ce qu'on appelle un ping-pong ou bien euh, un marché commercial. Mané assemblée du marché, assemblée du, du titre assemblée du ku nekk euh, du, du, du, du, de boxe, assemblée l'un direct le, yen fotowal fa yéni ni bi leral les projets war loi, les projets de loi. Yéni wara leral bi lep ni fay voter, ñu gis suñu bop mais ay député yoo xam ni dañ nekk di xuloo di xeex loolu du député. nous nous sommes au vingt et unième siècle euh, nous avions besoin d'une assemblée objective d'une assemblée réconciliée d'une assemblée forte d'une assemblée euh, euh, républicaine mii di du assemblée. di jëm si ngiraayu kiraayu Ousmane Sonko il y a le comité ad hoc de l'Assemblée nationale ñoom ñi ngi saytu pour. leeral Sénégal yi mais li ñu gis ak li Sénégal yi di dëgg ça fait deux dañu waxoon dañuy euh, comité boobu dafay tekki euh, giray kiray Ousmane Sonko mais da ba léegi dara leeragul askan bi lu ñu bëgg député yoo xam ne ñoo koy saytu euh, ils ont mis sur pied ce qu'on appelle le comité ad hoc comité boobu jiboowuñu jikko yi nekkuñu benn femme ba désaccord ba keroog quelques parlementaires Euh, de l'hémicycle dañu boudé euh, cette séance loolu dafa ñaaw ma ne ana suñu député yi ma ne bu ñu tànqal nit ñi bu ñu xoxatal askan bi loolu député lii c'est pas une assemblée bëgg nañ ñu leeral l'affaire Ousmane Sonko comme yàlla a un comité bi ñu tànn pour ñu tekki ay ndombal tànkam loolu war nañu ko leeral mais ay député yoo xam ni jubawuñu bokkuñu gis-gis nañ ko xoolal bu baax a baax askanu suñu gaal tey loolu mooy ce qu'on appelle la rétrospective de la semaine écoulée di gën a yaataan ñaaxaat rek Sénégal yi nañu ànd ak dal euh, que l'affaire Ousmane Sonko nañu ko leeral fu baax ne doonee benn diaspora bi gis seen bopp euh, que ça soit la jeunesse suñu yaay yi suñu papa yi euh, viol du du du Sénégal rek partout à l'intérieur du pays ñaa ngi koy ñaawlu l'affaire Ousmane ko nag dafa gën a jegu dayoo à travers les frontières de la sous-région partout dans le monde les gens ñu ngi observer teg ñu bët xool démocratie sénégalaise fu mu toll maa ne démocratie bi ñu doon wootee mi ngi commencé di nasaxal démocratie dëgg bu ñu soxla leeral askan bi di leen wax dëgg te nañu bàyyi di tout la ndëm nit ñi assemblée bi ñu gis du assemblée ma ne di xaar di leen déglu la prochaine séance plénière bi nga xam ni le comité ad hoc bii seetul l'affaire Sonko nañu ko leeral te bàyyi li ñuy doxalee te du dëgg du yoon bu ñu jógee sur l'affaire Ousmane Sonko dañuy dem si beneen sujet d'actualité de la semaine xam ngeen ni euh, jamono ji euh, coowum suuf bari na Sénégal keroog juddu naa ko ba léegi foo dégg Sénégal nit ñaa ngi ñaxtu. jël nañu suñuy hectare jël nañu suñuy suuf kan moo moom suuf si borom bi moo ko fi wàccee ma ne nañu bàyyi li ñuy def dafa ñaaw di xëccoo ay alalu jàmbur di jaay ay suufu jàmbur keroog dégg benn formation fële ca ñaari samba booy jaay ay hectare ça fait presque des millions et des millions ah di mbubboo ay euh, ay courtier di di jaay kenn xamul ma ne dafa war Sénégal réew ñu ñëpp ñoo ko bokk suuf si ñuy cax-caxee kenn ndeyu kenn moom bàyyi kenn moom bàyyi jégul si kaddu si kaddu bi ma ne nañu xoolaat suñu bopp Sénégal ñoo ko bokk bu gaal bi suru xëy ñu ñëpp lay suru xëy nañu bàyyi di euh, di tas di sàcc alal réew mi di séddoo alal réew mi di euh, jaay xam ni amul askan bi nañu xoolaat suñu xalal fu muy dugg Sénégal boo xoolee jamonoy euh, Senghor daan dégg ay millionnaire mais tey yaa ngi dégg ay milliardaire dans ce pays di bàyyi njuut njaaj yi l'escroquerie di bàyyi aussi alal jàmbur yi ñuy faral di di di di jël ba si drogue bi ba si les for médicaments y a tout dans ce pays dafa war a jeex askanu suñu gaal ma ne woo le président de la république monsieur Macky Sall mi nga xam ne Sénégal yi ñoo ko dénk réew mi président dina woo nga jël say motuwaay matelas bi dafa bare le président la république ma jot na doon des institutions au ministère concerné monsieur le président de la République balaa may tëj euh, l'actualité de la semaine dañuy ñëw c'est sur les médias euh, di wow nos consoeurs nos confrères à travers l'exercice de leur fonction li ñu gis ci plateau yi du loolu du plateau loolu du média chacun se dit journaliste war nañu xalaat bu baax yenn xale yu jigéen ñi xam ne ñu jox ay plateau ñu diriger ay débat ça c'est pas des débats c'est du spectacle c'est du cinéma di favoriser euh, certaines personnalités di leen jay di leen ray loolu dafa war a Sénégal di woo ce qu'on appelle le CORED bii saytu l'éthique et la déontologie di woo les SYNPICS le SYNPICS le syndicat des professionnels de l'information et de la communication ah ana syndicat boobu ana CORED ana le CNRA ñoom ñëpp dañuy nelaw nañu woo journalistes yi euh, regardez les plateaux de radio de télévision les internet Euh, euh, li ñuy li ñuy doxalee plateau yi c'est pas du professionnalisme c'est de l'amateurisme que nous sommes en train de suivre dans ce pays ma ne keroog président de la République en tant que chef d'État nee na pour ñu def des journalistes war ngeen ñu mën a proposer euh, des programmes alléchants des programmes ambitieux il y a pas que l'affaire Ousmane Sonko il y a pas que la politique il y a d'autres urgences dans ce pays il y a l'économie il y a l'informel il y a la santé Les Sénégalais ils souffrent dans la pauvreté euh, euh, y a y a ce qu'on appelle euh, euh tourisme baa ngi nii yàqu bu njëkk ba Sénégal les touristes venaient euh, massivement dans ce pays mais ñu ñëpp daw nañu Sénégal du mooy nañu Sénégal lan moo waral loolu euh, y a pas que le Covid ñaaw te fi fi am lëf waaw dañuy wax suñu dëgg di wax aussi les jeunes filles ñu nekk dans ce pays que ça soit les je l'ai dit je l'ai dit et je répète je pèse bien mes mots les télévisions les journalistes qui organisent des des plateaux dem xoolaat seen bopp ni ñuy poser ay questions dëgg yoon tamit ñu ko ma ne le métier de journalisme c'est pas c'est pas de la poubelle à l'époque on voyait de très grands journalistes qui s'organisaient qui respectaient les Sénégalais mais li ñu gis tey ci médias yi c'est de la honte c'est pas du journalisme waaw euh, nit taxaw na saaga yonent bi ay waajur yonent bi ñoo ñu ngi koy ñawlu nous condamnons ça kooku war na xoolaat boppam tegu ko fenn en tant que musulman toute la Oumma islamique on condamné et ont fustigé ce Sénégalais qui a décrié euh, nous disons les paroles du prophète paix et mooy le prophète Mohammed bi nga xam mooy suñu royukaay moom la fi yàlla wàccee mooy suñu yaakaar le prophète Mohammed ku ko attaqué tooñ nga tooñ nga ñu tooñ nga l'islam ma ne Euh, ce monsieur s'est excusé kenn du ko baal kenn du ko jégal mu dañuy xoolaat genre nit ñooy war na leen xoolaat bu baax a baax je pèse bébé Momo bés bu ko defatee dañ ko war a décapité du dëgg du yoon muy muy muy attaqué le prophète Mohammed nous nous sommes un pays musulman ah di woo tous les chefs religieux ñu jël seen i motuwaay ñu wax genre askan yu mel nii bañ di di di di jalgati ah kenn xamul genre nit ñi fan la jógee maa ko wax et je le répète je pèse bien mes ah Salam Vision est là pour sensibiliser informer conscientiser ñaan yàlla yal na fi yàlla def jàmm yàlla musal ñu si seytaane ñu bon ñooñu ah que ñun l'islam la ñu am le prophète Mohammed kenn waru ko attaqué avec sa famille askanu suñu gaal loolu mooy tey jàngatu bés bi euh, présentation Cheikhou Sakho di woo tous les Sénégalais ñoom rek dal yar ak teggin que réew mi na. il euh, y a les associations et ouléma du Sénégal ñu ngi woo tous les Sénégalais ngi dem ñaxu que euh, dose bi amul benn gàllankoor man de incha allah dinaa dem ñaxtu ragaluma tiituma ragaluma pour njëriñu askan bi yépp la le président Sall l'a dit euh, moom mooy njëkk ñaxtu wane le bon exemple ñëpp gis nañ ko bu ñu tiit bu ñu ragal askan suñu gaal balaa sur la rétro de la semaine dañu gën a delluwaat suñu xel ci yàlla fonk yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga ñi yonent bi billaahi na ko gis na gis bidéo bëccëg yonent bi du moroom ay waajoon bi ñu moroom asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokk yi jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf